jaa ngeen jëf mbokk yi xam naa ne na moom ngeen ma nag waaye maa leen raw tey nag damaa ñëw indi leen émission bu bees sax koor gi ak Ndeye Thiam bépp kilifa bu nga xamante ni yaa ngi ko ci région de ak ndombal jox la sama micro parce que ne ànd ak yow naka ngay woore ak naka nga koy dundee fii ci murid point info xewee ku ko bëgg topp na ko suivre fii ngeen di ci ànd ak Ndeye Thiam Salim bu ko kenn rate